di nuyu waa Bawol tout bu ma nee Réfane nee naa Bawol fépp ah di nuyu fa ma dëkk muy Midina di nuyu waa Midina Rue Thérèse di nuyu ñëpp di nuyu sama doomu ndey Abdou Jimbe ak sama boy mandat ak Aliou sama grand di nuyu Assane Ndiaye di leen nuyu yéen waa presse bi di nuyu sama adversaire di bëggee ñëpp di ñaan yàlla dugg ceeg bisimilah rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilah rabbil alamin am na solo Pala Diop tam ñu ngi koy nuyu mu ngi fi di manaat ak Mbaye Diallo président entraîneur a ah. ñu ngi koy nuyu moom tamit Mame Balla dafa am lu ma dégg mbay di ko faral di wax ci làmmiñam maanaam day dem dafa ne ci yoon deesu ko téye te yow defe naa fi nga mujj xale nga téye muy Tapha Mbeur yaa ngi dégg kàddu googu mbay di wax ndax am na lu mu la sànni léegi. waaw xam nga nit ku nekk ak euh, sa domaine ak nooy doxee ak nooy waxee quoi yow la concerné quoi man li may dund man la concerné moom li muy dund moom la concerné man bu nekk loolu moom nekk keneen tey li ma gëm tey loolu laay mais bu yàlla dogalee tey mu ma dal si moom damay gën lu gën si man rek quoi. mais li nekk si moom wax dëgg yàlla comme li ma waxoon si bee paase laa rek. li nekk si moom du ma ko gëm. moom la intéressé moom la concerné mais man li nekk si man. man loolu laay gëm man la man loolu man loolu moo ma concerné. loolu moo la concerné loolu moo ma concerné voilà. parce que là moom benn instant nii xam nga. waaw booy dem moom yóbbaale amu yëpp. là am na machine am na victoire am na défaite mais am na lu ëpp solo mooy bu la kenn jéppi. maanaam bari ci jom ak fulla quoi. jom ak fulla ak ci gor. maanaam yow kon su ma la déggee da ngay woo mbay mu ñëw ci jom ak fulla bañ a def lenn li ragal. non amul lu ma koy conseil moom du wax dara. man sama moom intéressé man. man man su may ñëw damay ñëw si jom ak fulla ak ngor. mais xale bu la bëgg a daan. te ne rek la gis doo ko wax dara. Ah, man daanoo gu ma daanoo goo mooy. man daanoo gu ma. kon du kii moo lay daan. non non. mbay mi mënu laa daan. non ba tey yaa fay rek man du bu dul moom ak keneen ko mu mënti doon pour guddi ma toll nii. waaw li nekk sama kanam alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla bu baax. borom top seen buñ ko waxee dañuy wax ku mën a bëri. macha allah waaw macha allah loolu la ñu maa ngi nuyu sama papa Mayel Diop bu baax a baax. faa waroon tijjee. borom Ndakaaru ak Carver kenn du moom. maa ngi nuyu Abbas Ndoye président écurie Fass bu baax a baax. su ma nuyoo Pape Mayel rek. waaw moo loolu lépp mën na fa laa waroon tijjee maa ngi jégalu bu baax baax. mais techniquement yéen ñaar ci côté bëri. waaw noo noo gisee leen yéen journaliste yi. non kay yaay wax moom nag ñun mënatunoo si yéen a ngi jàkkaarloo. non xam nga kii man a moom li ñu am mooy arbitre sifflé génn suñu diggante ma def yëfi góor mu def yëfi góor. waaw mais pour l'instant fii moom yéen yéenay di yéenay yéenay gisee yéenay wax. Ah. yéenay xool ku nekk catégorie rek ku nekk calligraphie fi wane rek ku nekk mën ngaa gisee sa bopp. yow de jiñ nañ la borom top 5 ba di la ko wooyee. waaw macha allah waaw maa ngi nuyu sama papa Bégaay Mbaye baax a baax si lépp si la jógee mooy loolu ko mbay kii ni ma ko déggee daa mel ni moo la dàq bëri la jàpp de. maa ngi nuyu sama papa Bada Dione ah. waaw waroon naa ko njëkkee ah lépp moom la. Hmm, di di di di nuyu waa Petersen ah Sandaga képp ku naa yokkal ma jaay la ah, maa lay bége ñoom ñëpp a sama ginnaaw. ñoom Dame Cissé Babacar bu Modou Lama gaa yëpp ah. waaw namu dara. kii nag grand frère la te bu bés baa it xam lan laa koy wan. xale ak mag rek. xale ak lu fay xew. lu fay xew jàpp ko defaral ko dem sama yoon bu mu def sax ci boppam neen man mën na maa téye. Ah. bu mu def sax ci boppam dama ko bëgg a xamal leen rek pour mu bañ a yàqal boppam wala muy yàq dara am liñ ko fay. bu dee dafa ami soxlaam na ko ci faj te toog. est-ce que yaa may dégg. rek. liñ ko fay bu dee am nay soxla na ko ci fay te xam ne man liñ ma fay am na leneen lu ma ci def pare naa tegal nañ ma xaalis bu duubul liñ ma fay. Hmm. est-ce yaa may dégg te pare naa man boo ma gisee xam ne pare naa. tey suba suba boo suufle woon ma toog ci deq gi loolu amul sax. demal ma ñëw gi mën nga cee toog. déggoo ma ne arbitre suufle kii ak bés bu mu mën a doon moo tee ma toog ci dën bi loolu moom mu neex ko mu naqari ko ganaa frère la nag dinañ ko jox cër beeg yëpp mais na xam ne sport amul grand frère. buñ xasee xaatim rek danu koy dund mais bu jàllee it. mun tase woon ci mbedd nii cëru grand frère laa koy jox ak yëpp mais lu mu mën a def ci boppam rek. damay bañ mu yàq xaalisam quoi. mais man dafa am lu ma lay laaj te li ma lay laaj Basir Mbale da koy fekk fan yi ci làmb ji fël mi noonu maanaam gis ngeen fan yi mag ñi ak xale yi daa mel ni temps yi neexut ci gune yi de. waaw lool mën naa doon ci gune yi nga xam ne amuñu condition amuñu doole ah. mais ñun yàlla sunu borom dimbali nañ am nañ kàttan am nañ condition mën nañoo bëre fii ba suba te ñun sax yi dañ ñoo xamewut di bëre sax ay minutes muy yàgg. kon kii maanaam su ma la déggee lu gaaw koy daal. lu ma la mën a xamal bu taxawee mën naa daw nag. mu yàgg. maam Balla mi dina daw. ah san dépasse moom rek mais man moom lu waay mën a xam moom na ko leer ne arbitre ba bu wàccee loxoom amul lenn lu ma koy nëb naa ko damay def lii wala damay def lee bu nuy wàccee loxo maa ngi sa kaw. mbay kii mën naa loolu yëpp amul problème ñun loolu dañ koy lijjanti rek ñun ñu ngeeg suñ doole ñu ngeeg suñ xel am na luñ jëm lu ne si ñun. Ah. amuma lenn lu may maayan ci moom instant bii. Hmm. est-ce que dégg nga ma loolu arbitre soufflé ma jàpp ko sànni ko fële. arbitre bi na soufflé rek génn suñu diggante ñu xool ñu ba xam. xanaa loolu de mooy yor saw xob sànni ko fa la neex da lay sànni la wax de man na xaw ma fu mu lay sànni mbaa du la génnee sat bi kon. waaw mais moo lool bala josi rek. li mu la wax nag maam Baal da war a wax nag dama lay sànni jàpp sànni fële. non dañ ne bisimilah baax. waaw rahmaani baax. waaw fa lañ toll. waaw lamb ji des na. dañoo ñëw pour présenter wu nii rek mais ku su nekk xam nga la mën. nit ku nekk xam nga ka bu doole nit ku nekk xam nga ka la dàq fii nag tey neex na mooy dañoo defee fu nit tey. solu rafet xeeñ parfum moom mu xeeñ parfum xam naa laalu saafara xaw man nag man laalu ma kon tey dañoo yëfee fi nit bu ñu demee ba si làmb jo ñu xajam uh-huh. boobaa dañ xam ku mën man dama hmm. ës ës ës si làmb Assane Ndiaye Assane xam na lu may wax man xeeb moom Mbaye Gouye Gui de hmm. ku dul moom sax du ma ko xeeb mais damaa tarbiyu ci làmb am na mbër yu bëri ñuy waree mbëru grand combat fii ci làmb ji dama leen a war mbapat dama leen a daan daanati leen ba su ma ñëwee ñu tekki te ñu ngi ci làmb ji te ci làmb ji di bëri xam na seen bopp yàlla moo dogal nag ñu dem ci làmb nga dem ba ci biir nga am dog-dog da koy sant yàlla xam nga lu tax hmm. parce que chaque jour nga xëy dem des dese te kooku gënoo julit la ngay julit chaque jour nga xëy dem tudd te kooku day gane si àdduna àdduna moom benn instant chaque jour lépp lu fi am rek jàngat la mais bu dee wàllu bëre hmm. wala wàllu fit wàllu jom hmm. instant bi ñu toll alhamdulilah rabbi alamin sama pap pap Maye Diop dafa jël lépp na ma entraînement rek laa la sant kese kese man dama dégg ci biir waxam mu nu baat bi suufle woon léegi mu toog ci sa biir bi waaw non loolu wax la rek man bëre rek laay def ah. man si taal si daara laa jàngee bëre ah. soo ko ñëw ci igri tey jii man moom buñ bokkoon kër nii mën nañoo reer ba pare tëdd suba ba ngoon di bëre suba suba ba guddi gi ñuy bëre. kuy daan ku yëpp lay jël bu keroogee. non du am dara. am dara. bopp bi. non bopp la. da ngaa bëgg ni mbay amul xam-xam bu bëri. noo xeebul moo ko lim yor de. mais lim yor daa bëriwut kon. mais man damaa yor kele contre kele. kele contre kele. te moom kele rek la yor. waaw non moom kele la yor te man kele contre kele laa yor. kon de mbay la mu yor bëriwut bu dee kele kese kese la yor. non bëri na ay mais man kele contre kele laa yor. waaw yow da yor kele yor contre kele. waaw moom mu yor kele kese. waaw man yow boo ñëwee bu def ma kele. waaw xam naa contre kele bi. te boo ko contré. te waaw ma la contré kay mooy jeex na. mu ñibbi. top top top léegi nag xamul lu ñuy defam. top la top 5 kay mooy ay dégg nga la mu wax. Ah. contre yow moom daa jàpp ne yuroo yow benn kele nga yor. moom moo ko yor benn kaleem boobu de. ban long longal boobu rek la yor. te loolu moom bés bu la yàlla nattoo ba ma jàpp sa tàng yii ci biir ndëndi stade bi moom defe naa ne kenn du la fa njëkk bu dee arène nationale la ñuy bëree nag moom fu ma la njëkk jàpp moom bassin bi ci laa lay sànni amul sax négocier man du ma mbër mu nuy mboot bu dee tegat nga nga jéem a wut beneen action bu dee sa loolu nga yaakaar long-longal boobu noonu boo boo seeti leneen. daan na ci mbër yu bëri nag parce que danaa la daan ba ñibbi te doo yëg lu xew man du ma ñooñu man Babacar xale laa man dama jàng bëre ba man ko dama jàpp samay morom duma leen daan leen moo tax tey may bëre kii hmm. yaa ngi wax nag di jéem a xeeb ba gi ma la sum waaye di am yooyu teg yi ngay teg nii yëpp teguwul di jéem a dëggal sa bopp nii soufflé moom moo tee ma lijjanti la man jaaxaloo ma ci dara bu dee gàllaaj booy boo nga toog loo ci man mën naa duubul ba ma wax la ko tey yow man leen lu ma la siy nëbb nag sa xaalis moom bu ko jéem a yàq sax ci ay gàllaaj ak yooyu di sonn loo def def naa duubul ba toog ñi topp sama ginaaw dañ maa yaakaar yow ganaa frère nga dem nga ba ñëw tegale say defet ñëw daan mbër mooy lool nga xaw a ñëwaat nii sax li ma la doon laaja sax damaa dem ba ci biir rëccu ko de parce que mooy lool ah, barke alxuraan yaa ma moo ma jiitu ci mais dafa tegale ay defet daan tafaa mbër rek xaw a ñëwaat noonu ma laaj la ngay jéem a yàggal combat bi boo nangu woon boo nangu woon bëre nañ daaw ma defaral la kon ba léegi maa ngi waaj a bëri waaj moom bu ko jéem a yàq sax di dem naan ay ñaan ak yii xale la ñaan di jàpp mag moom yaa ma gën a xam mbay magi Pikine yaa ngee toog di la déglu de. de ñoom Pala Diop. man Bawal a ngi sama ginnaaw. Ah. est yaa ngi may dégg. waa Bawal waa Medina. ñëpp a ngi sama ginnaaw est-ce que yaa ngi may dégg aw ma len lu may tiit ci kii wala lu may maayen wala loo xam ne am na lu ma ciy xoxutal wala len lu may hésité ci moom. dama koy jàpp daan ko du ma bëreeg yow ay minutes ay secondes laay bëreeg yow te maa la ko fii tey nag booy boo nga def lool sa bopp bu baax. <laughs> man de ay seconde Assane Ndiaye de xanaa moo ñëw àtte ñu maam Balla xam man tam xam la moo neex kii lim lay wax yaa ngi koy dégg il faut nga tontu ko parce que nag kii wul na boppam de. waaw waxu xale lay wax comme xale la moo tax muy waxu xale rek. ah maanaam xale day fooye de xale des fois sawara. waaw fekk la kudd ko bàyyi. waaw waxu lay wax bàyyi ko si biir ba làmb jëm. da ngaa bëgg doon sawara ci kawam. non man instant lu ma doon man xam naa ko. waaw bassin bi mu la bëgg a sànni nag di nga ko nangu. non loolu waxin la rek loolu waxu mbër kii li muy wax lépp waxu mbër la man am naa combat bu nekk. Ah, ah. bëri naa grand combat bu nekk. li ma bëree ci ay combat bëree ko ci ay combat. nit boo toogalee ne dafa daanu mais dawal nga wax ay ay que li mu am ci victoire dafa bëri macha allah te ay ndaanaan rek la daan. daa war a wax li nga def ci. daan yaaram deux parcelles. waaw ku daan Moussa Ndoye. ku daan jëlaani buy waaw nga taxaw fii benn saa nga bëgg a taxaw nga fàtte loolu di bëgg wax ay defetam loolu xanaa soxor la sax bu yàggee. kii wax xale lay wax rek bàyyi ko ci biir. mbaa du kon wax ji daan na metti ci moom. non non amul solo mooy loolu ba le jour ji rek. Hmm. ba le jour ji waaw incha allah. ñooñu ba nga leen di daan fii ma tolloon sama digganteek yow nga toll rek. est yaa may dégg booba xale nga woon ñooñu. doon ay mag Moussa Ndoye du mag. Moussa Ndoye gën a màggat ñëpp. ba li ngay wax may man aw ma lu may wax ak Moussa Ndoye sax dama lay wax rek ñooñu ba nga leen di daan xale nga woon jàpp est-ce que yaa ngi may dégg te buñ bëree dinaa la wol ne xale laa ba léegi gëmoo li ma lay wax mais nag yàlla na arbitre suuf lay génn suñu diggante dama lay jàpp defaral la man soxoreew ma la dara grand frère nga yaa ma may chance ñu bëre. am na daane nga fi mbër nu ne. seetaan naa lépp maa ngi lay seetaan yow dëggalal sa bopp daan nga sama grand Mbaye Diouf nag mi ne fee na la leer ne lépp loo ko yanoon lu ko raw danaa la ko yan. aw ma lenn lu may bàyyi sama digganteeg yow. barke alquraanu karim kee sama mag la sama lépp la daan nga ko takkaan ko yenu ba taxaw wane sa bopp lu ko raw nag yow moom jàppal ne spectacle laay def ci yow ba doyal bàyyi la. mag nga léegi neex na dégg nga kon dañuy waasan Ndiaye spectacle la na def fooye. spectacle maay borom spectacle. yaay borom. spectacle kon moom moo mun spectacle. ma ne woo ko. ma ne ma ne woo ko. mu lay dox di wax ne moom rek ngay bëre nag. ah man est-ce rek laay daane. moo tax ma la wax xale lay wax. waaw lay wax wax xale ko waaw kii boo nu uboon ci saal mu abal ma boo nu yóbboon géej mu abal ma barke seexul xadim boo defee ci sa bopp ne yaa ma ëpp doole yaay nax sa bopp bu ñu tëjoon ci lépp nga abal ma entraînement maa la gën a ñimalu xotteku fuuf barke arxuraanu karim boo foogee ne weñ yi ngay ne di yëkkati di jaju da ngaa foog ne yaa ma ci ëpp doole. yaay nax sa bopp Pape Mayel xaalisu réew mi la yor rek di ko pasar pasaree ñun ñu ñuy jàppale dañuy yokk dañuy jaay di am bénéfice di jàppale est yaa ngi may dégg waaw kay loolu la am lu may wax rek man wéeruma ci kenn ku yor nguur ku bokk ci nguurug Sénégal gi di jéem a kii man ñi may jàppale dañuy jaay am bénéfice jàppale ma. loolu laa commencé ci laa yem Assane Ndiaye kaay ndax yow comme lu koy tëgg man sax ñàkk naa ndax bii combat dégg nga de lam la wax ne na xaalisu réew mi man day loolu waxuma ko moo ko wax de Assane yaay toogal non Assane kaay nii ci digg bi ngay toog man maay jóg kay. ñu ngi sant yàlla bu baax di jullit yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi sant Serigne Touba bu wér. di nuyu senegal yëpp di nuyu waa internet bi di nuyu képp kuy dund làmba ah. di nuyu presse bi maa ngi leen di siyaar bu baax a baax di nuyu sama xarit Ahmed borom presse café sama doomu ndey maa ngi koy nuyu du ko ziar di nuyu mbay guy gi sama frère di nuyu maam Balla sama xarit ah. maa ngi koy ziar bu baax di nuyu képp koo xam ne nag yaa ngi si jataay bi waa ñoom Babacar ak gaa yëpp waaw loo bëgg a xam. <laughs> Assane combat bi maanaam date bi bëgg nañ koo xam parce que ñoom ñaar boo xoolee ku ci ne mois de mars nga bëréew yaa ngi dégg daaw sa combat daal taxawal nga combat bi taxawal bi ndax jafe woon nag et bi mu taxawee léegi ban date lañ ko war a bëri na lool parce que ñi ko bëggoon bëri na macha allah képp kuy promoteur bëgg nga bi mais nag xam nga yàlla mooy joxe wërsëg daal yàlla moo ma ko séddee moo koy sant yàlla bu baax ñaan yàlla nag euh, ñu dugg seeg jàmm mu jeex si jàmm xam nga combat bi li ma xaru ci dama ko tuddee kilifa. kilifa. Euh, troisième édition ministre Matar Ba laa ko tuddee moo tax combat bi mu jaralan ma lu ne ba yàlla dogal ma jot ci kon dama koy sant yàlla bu baax jël lépp jëbal ko monsieur le ministre Matar Ba moom laa ko tuddee mais jafeet na lool nag. waaw torop waa bi. waaw bi euh, dinaa dem CNC bëgg naa ko mois de mars incha allah. mois de mars arène nationale. si kàttanu yàlla waaye. <laughs> incha allahu rabbi te combat bi dinaan ci tegaat yeneen quatre grands komba képp ku xam Baol Production cinq grands combats nga ko xamee incha allahu rabbi nañ ci tegaat yeneen quatre grands komba pour gën a jëmmal bis boobu incha allahu rabbi. waaw Bébé jox naa ko fourrière bu Grand Yoff mbooloo. kañ la ñuy bëri ci taxaw na non loolu bisu boppam lay doon incha allah waaw. <laughs> xam waaw non lépp luñ man rek incha allah rabi ñu ngi ci fii ak suba sax incha allah rabi dinañ dinañ taxawalaat beneen combat ci kàttanu yàlla ndax wax naan ak mbër yooyu ba pare xam naa bu bii paasee rek ñu jox leen beneen. non man boo gi déggee li may wax yëpp pour arène nationale wax naa leen seerul arène nationale seerul stade bu neexal liggéeyee la xam nga lu seer frais de organisation moo cher ak police loolu moo cher mais arène nationale bu ñu ko joxee cinq cent mille loolu yenu na maanaa mais dafa am bés yoo xam ne cinquante policiers mën na ko lijjanti pas cent policiers sans police cinq cent mille la frais de organisation des fois mu nekk cinq cent mille wala quatre cent soixante quinze loolu moo seer mais arène nationale moom seerul neex naa liggéey stade bi rafet na image yi nice na macha allah. am na lu ma ko bëgg laaj ñu jeexale fa. Mhm. maanaam sa lamb bii paase. waaw am amateur yu bëri yu ma abordé nekk lamb bi sécurité bi dafa xawoon a manqué quoi est que loolu waaw xam nga làmb Bawol moom euh, ñëpp xam ne Iba Mar moom yàlla daa dogal code bi dañ ko xam dañ ko téye moom Iba moom lu ñu ko mën a def xam naa gars yi ñoo amul seetlu rek mais boo répété lu ma 10 combats dama tëj stade bi 10 mën nga si lim ay Siteu Malaw Seras xam nga ay Marley Boy Bawol ay mbay Diouf armée ay mbay armée ambulance bi Thiès et cetera et cetera. Iba Mar Diop moom lu ñu fa tëgg rek macha allah mais dañ koy sant yàlla mais nag arène national laa bëgg a def noonu ci kattanu yàlla ndax amateurs yi ma leen di gërëm ndax lépp ñu tëgg rek dañuy ñëw ndax xam nañ li ñuy tëgg ndax ñun amateur lañ dañuy dund ak ñoom dañuy waxtaan ak ñoom li ñuy soxla ñu koy def combat bi lu ne la leen jaral groupe yi tey ji lépp tey foo aw moom la ñuy waxtaanee mbay guy gi mambala mais nag favori bi laa leen di laaj yéen yéen yéen yéen presse bi <laughs> waxal Mbaye kuy favori. non man moom ay favori yëpp doo ay lijjantiw ma ko man doonuma fi naan kenn maay lii wala maay laa leen daal laa seq kii arbitre soufflé ma toog ci deqam yii amul leneen lu may hésité favori moom mooy makkay na jël lépp rek ma jàpp ko daan ko mu jeex ku ne dem sant ñëpp di gërëm waa Sandaga Petersen Dame Cissé bi taxaw na fi mu ne nii day jël xaalis dugalal ma ba mu doy may lekk di entraîné bu jeexee mu dugalaatal ma mu nga siin di ma dégg sama xarit la sama doomu ndey la. Ah. Babacar bu Mod la ma aw ma fayam ak Mod la ma mooy lool est-ce nga ma képp ku ne Petersen ak Ngopa sama papa di gërëm sama rakkitam Seer ngoom kooku day sonn ci man est-ce que yaa ngi may dégg ak sama mag yi ne Colobane Cheikh ñoom seex mu ndaw gaa yëpp sëñ Modou Ngom gaa maa leen di nuyu képp ku doon bawal bawal nekk Ndakaaru maa ngi lay bëggee di la ñaanal jàmm di wax nga ñaanal ma ak képp ku naan yokkal ma jaay la man commerçant yëpp maay seen mbër est yaa may dégg fii ba combat bi jàll nag booy jënd yére moom na nga ko xoolaat nde lu ne mën na la cee fekk yaa ma gën a xam di béggee ñëpp di nuyu sama gaay yi nag. <laughs> looy tax Mame kuy favori. non lamb moom amul favori quoi. Hmm. lamb li ñaan. reeru ñaam bi la quoi. fu muy daggee moo loolu waaw. Assane na ko micro yi jege. léegi looy tàggoo. waaw man maa ngi woo sama papa Malick Diop bu baax a baax. ak Abbas Ndoye président écurie Fass sama père Pari Ngagne Diagne baax a baax. mais lu la booleeg waa Fass. Euh, Abbas Ndoye. président écurie Fass. waaw nit la. Abbas sama kilifa la. ok sama combat bi passé ñëw na ba stade maa tax mu ñëw stade. Abbas moo jàpp si loxo présenté ma sama papa Pape Mayel Diop na ko àdduna ñëpp xam. mu dénk lu ko am na solo. ak sama père Ngagne Diagne. chaque chaque dimanche damay yendandoo moom waxtaan. mooy loolu conseil ma mooy loolu. kon tàggoo waa Saloum sama waa dëkk. loolu leer na Kër Mbadi Yacine. waa Ñaari Lam waa Maxama. di woo waa Ndaamaatu. Touba fu ma jàngee. yëpp ba mu daj di woo waa Bes. baax a baax ak waa marché Xelkom ak waa Minam ak waa Jokko. waaw ak waa Akis bu baax a baax. di woo Cheikh Gueye. Cheikh Gueye maa bu baax Cheikh Gueye ak Cheikh Diop ak Bamba bi ma àndal nii quoi ak ñoom booy Malick ñoom Bàcci Ndoy ñoom Sidi maa ngi gërëm ñëpp di woo ñëpp ñëw ci làmb ji Cheikh Diop maa lay woo bu baax a baax nga dugg sa loxo ci làmb ji Amasi Espagne Issa Bol Espagne waaw ak euh, dam Thiam Italie waa Pikine nag moom saa yi moo loolu mention spéciale Pikine seize communes yëpp maa leen woo ci combat bi ñëw jàpp ci parce que làmb ji lay amee arène nationale lay amee damay dox dugg ci stade bi incha allahu def bu cur ci kàttanu yàlla kenn mënu ma ko teree def ci kàttanu yàlla. doxante leen loxo. tàll leen rek. amul danaa ko daan solal ko ba mu doyal daan ko solal ko ay yére ba mu doyal loolu du problème. parce que waa ji waa ji moo ko xoolee sax dama koy xaw a faan. man may ndaanaan di garmi di bette bette namu ma dara de. eh jaa ngeen jëf mbokk yi gis ngeen jàkkaarloo bi fi amoon ci signature contrat diggante Mame Balla bu Pikine euh, daje ki nga xamante ne mooy mbay guy gi Assane njaay moo ko tëgg mbokk yi làmb la boo xamante ni ñaari xale la combat déclancement la mbay guy gi dafa am fu mu jógee am fu mu jëm. kii nga xamante ne mooy Mame Balla am fu mu jógee am fu mu jëm mbokki yi loolu lañ woon di ba ëllëg incha allah ci beneen xeexu làmb ba ci kanam tuuti rek jaa ngeen jëf.